Mamadou si Albert ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. journaliste nga di xeltu itam ci wàllum politique laaj bu njëkk mooy ban commentaire ngay def ci li nga xam ni moo jëm ci discours bu mujj ci nouvelle an bi nga xam ni président de la république Macky Sall daan na koy def. waaw man ni wax ne ñu doon xaar président discours euh, fin d'année la discours euh, buy tàggatoo aussi bo wax na euh, ak askan bi lu mu gën a jàpp daal mooy que. delloo na njukkal Sénégal loolu lu rafet la lu lu am solo la pour président nga am ñaari mandat nga delloo Sénégalais yi njukkal ko wóolu nañu la ñaari yoon loolu lu am lu am solo euh, mën nañu jàpp aussi ci euh, discours bi mu wax wax na moom li mu liggéey euh, PSE bi réalisation yi mu yu mu def ci wàllum yoon ci wàllum aéroport ci wàllum éducation secteur yu bari wane na moom liggéey na wax na sax que Euh, lu mu liggéey euh, ñi ko jiit ci nguur gi suñu liggéey loolu bon loolu moom programme réalisation bi feeñ na bu baax baax ci ci ci discours bi bon bu dul loolu nag am na li nga xam ne bon euh, ci wàllum démocratie waxul dara dara dara ci ci gouvernance politique bon lu mu ci wax dafa sànni xeer opposition bi de ne te am na ñi nga xam ne ñu ngi fii bëgguñu jàmm bëgguñu dal bëggu ay extrémiste lañu wala ay populiste lañu euh, loolu aussi euh, attaqué na mais euh, pour man waru ko woon def ndaxte day dem président de la république waral na sàmm wax ci opposition bi ndaxte moom mënul nekk ci nguur fukki at ak ñaar ngay dem te doo wax dara ci sa opposition wala ndax Euh, li nga ci gis wala li nga xam ne lii war nañu ci euh, sàmm bon loolu feeñ ci discours bon mën nañu wax ne aussi wax na lu bari ci wàllum quand même euh, jàmm que que moom tant jàmm la la taxaw que woote na ci jàmm te nit ñi gën a boole rafet wax nam aussi ci wàllum Casamance exemple que moom dafa yaakaar ne que jàmm mu ngi dellu ci Casamance que ñi nga xam ne bëgg nañu bokk ci Sénégal am nañu seen place loolu aussi euh, discours bu am solo la quand même mu wax ci ci ci ci Casamance bon à part yooyu daal. Euh, euh, mën nañu wax ne nag ci en tout cas forme bi mu ma doon gis ci moom ci discours fin d'année bon moo gënoon am na am na lu ci changé ndax bi yoon dafa gën a dal. Euh, di hésiter aussi de des fois de mu wala euh, xëy na dafa sonn wala euh, am na lu muy tiit am na lu muy ragal bon loolu aussi feeñ na ci discours ci président bi. waaw hmm. ah, Mamadou Sy Albert yow gisoo ni comme ni ko yeneen observateurs yi see gisee ni ab discours campagne la jagleel ko ki nga xam ni moo di Amadou Ba candidat Benno Bokk Yaakaar. déedéet ci suma gis-gis daal feeñul. feeñul gaagaa wax na ne que moom liggéey na te li mu bëgg mooy que li mu liggéey ñu continuer ci euh, waxul daal turu Amadou Ba waxul aussi ci campagne bi fan la fan la féete euh, lu ñu mën a wax mooy ni muy mu waxee que moom liggéey na euh, indirectement discours électoraliste la dafa bëgg ñi nga xam ne jàppale nañ ko fukki at ak ñaar ñu continuer di ko jàppale donc euh, électoralisme bu foofu daal euh, mooy euh, laa gis mais waxul directement nañu jàppale Amadou Ba de dégguma loolu daal ci biir ci biir discours bi itam euh, euh, ñaax na wala invité na ñi nga xam ne ñoom ñoo di candidat élection présidentielle yi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ngir ñu daal di doxal jàmm itam ci li nga xam ne moo jëm ci scrutin bi est-ce que président de la république euh, melul ni ku wax dëgg ndax li nga xam ne jot na fi jaar ci ay violence yi nga xam ni ñaari at yu mujj yi dund nañ ko. man président ni mu ko ni mu waxee la la dama ci ah, d'accordul trop trop trop ndaxte bu fi bu fi xewoon juin deux mille vingt trois euh, événement bu rëy la moom dafa yaakaar ni événement boobu euh, ay violence la casse la bon defe naa euh, bu ñu buggee xool dëgg-dëgg lan moo xew mois de juin dañu war a seetaat suñu bopp suñu suñu société bi moo doxatul dafa am crise euh, modèle démocratique bi euh, ni mu ko gisee daal euh, man su gis-gis wute na ak loolu du violence ket kot am na lu mu ëmb violence boobu mooy crise institution crise gouvernance politique ak économique hmm. bon naka noonu aussi opposition bi président mënul dëkk ci jiiñ oposition bi moom rek mooy indi violence déedéet lu ñu gis état bi ci boppam moom mooy indi violence violence juin bi wala violence bu am deux mille vingt et un deux mille état bi ci boppam moo provoqué violence yooyu et loolu respons du responsabilité opposition bi moom président chef de parti chef de coalition war na xam ne ne que am nañu responsabilité ci violence boobu mais malheureusement président moom li muy li muy waxee mooy toujours euh, opposition bi la Euh, alors que affaire bi suñu démocratie moo feebar tant que nanguñu dafa feebar du toog pour waxtaan xool euh, lu tax mu am crise bu mel bu mel nii. Macky Sall ndaxam euh, répondre na li nga xam ni moo jëm ci attente askan wi ci li nga xam ni moo jëm ci ñaari mandat mi bokk na ci fànn bi nga xam ni da koy fësal loolu politique de développement social. non man yaakaaruma ko yaakaaruma ko gaagaa def na ay euh, investissement muy euh, ci yoon bi muy autoroute yi muy aéroport yi euh, BRT TER loolu investissement la mais boo xoolee investissement milliards yu ñu fa def ak nekkinu sénégal yi dafa dafa waroo trop trop trop trop nit ñi amatuñu comme ni ñu koy waxee kenn mu amatul pouvoir pour nga am añ reer ak ndékki mais loolu su amee ci ci réew nga xam ne ni que euh, am na am na am na am na problème problème président bi mooy condition sociale économique bi que loolu moo tax euh, sénégalais di di jooy loolu tax muy am tension loolu moo indi lu bari euh, donc nu ñuy investir dañ ko war a seetaat dañu war a seetaat est-ce que loolu développement la loolu pour man du développement que mën nga am ay pont autoroute mais su fekkente ne nit ñi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñ suñu dëkk sa développement boobu euh, yaakaar naa sa sa askan mënu ci mënu ci ànd. moom comme ni mu ko waxee kon jàpp na ni Sénégal moom mi ngi ci yoonu émergence ci la waxaale ni sax ni moom dina créer ab fondation bon commentaire nga ci def Mamadou Sy Albert. waaw ci wàllum émergence moom euh, euh, sori nañu lool lool ndax ndaxte boo jëloon rek comparé ñun ak euh, ak Inde wala ñun ak Turquie waxuma sax waxu Chine émergence mooy ki nga xam ne am nga développement bu mu mat sëkk te mën nga compétir ci marché international wala ci marché régional Sénégal amul doole boobu boo comparer ak Turquie nga xool ñu ngi fii ci Sénégal ñooñu raw fu nekk waxuma waxu Inde waxuma waxu Chine donc ñu nekk duñ ci émergence il faut que euh, acteurs politiques yi xam ne aussi que émergence bon ñëpp bëgg ñu nekk pays émergent mais euh, am na lu mu laaj loolu nag amaguñ ko euh, yaakaar naa problème une émergence bi xëy na Sénégal yi dinañ ñëwaat gën a gëstu xam lan mooy émergence ak suñu toll suñu développement ci gàttal daal ba tey ji Sénégal fait partie des pays les moins avancés loolu sur le plan international loolu lañ foofu la ñu classé Sénégal donc sori nañu pays pays émergent maintenant fondation bi aussi comme ni nga ko waxe lu baax la bàyyi nañu nguur mu def fondation pour euh, liggéey euh, ci Sénégal loolu lu baax la am na yeneen président yu am fondation mais pour man euh, président Macky Sall comme ba léegi mën na am contribution ci gouvernance politique et économique il faut mu xool naka la mën a dimbali Sénégal surtout président bu buñ nar a fal naka la koy mën a dimbali ci gouvernance politique gouvernance économique man foofu laa gënoon xaar euh, président bi ci Sénégal ak taxawaayam ci Afrique am na am lu mu mën a indi en tant que expérience je crois que yaakaar na yaakaar naa du génn loxam ci gouvernance euh, politique ak économique mu bu Sénégal wala bu bu Afrique Mamadou Sy Albert ñu ngi ci étape contrôle parrainage yi daanaka samdi gi wees lañ ko daal di euh, door ñaar fukki candidat daanaka dem nañ fa waaye ñu ci bari recalé nañ leen ci li jëm ci wàllum parrainage est-ce que mën nañu wax ni ab processus bu am solo la. ab processus bu am solo la mais luñ ci jot gis mooy comme ni ko waxee ni ñu éliminé bari na donc parrainage bi baaxul il faut nit ñi nangu aussi li nga xam ne def nga ko mu jural la coow. Euh, la 2024 bu ñu sax lu ñuy éliminer mu ngi commencé yokk soo soo moytul dinañuy éliminer ñu bëri et et présidentielle quand warul ànd ak élimination bu mu des cinq wala dix personnes loolu loolu euh, loi bi moo moo baaxul te lu ñu njëkk a gis boo jëloon sax exemple euh, dégg naa ko keroog am na ñi nga xam ne dañ leen éliminer ñu ne leen yéen seen électeurs ñu ngeen indi nekkuñ ci fichier bi alors que ñooñu am nañ carte d'identité am nañ carte électeur te nekkuñu fichier conseil constitutionnel donc am na problème même ci fichier bi waaw waxuma nag parenage bi la laan mooy parrain euh, defe naa daal war nañu euh, après présidentielle bi bon war nañu toog waxtaan ci biir parti politique yi pour xam ban parenage la ñu war a est-ce que dañuy bàyyi parenage bi wala est-ce que dañ koy euh, dañuy jël beneen méthode yaakaar naa daal que euh, acteur politique war nañu bàyyi xel parrainage bi moom lu mu wone jafe-jafe yi bari na lool lool lool. mbir mu Ousmane Sonko la ñuy jeexalee waxtaan bi bokk na ci absence am bi nga xam ni mandataire bi nga xam ni moo ko fa waroon teewal teew fa ba léegi nii xamuñu lan moo tax teewu fa li ni mel nag jàppaloo ni ñu ngi koy surveiller bu baax wala ndaxam surprise nag mën na ci am. waaw ñu ngi koy surveiller moom euh, yaakaar naa lu ñu ñëpp ragal mooy su am surprise ñu éliminer Ousmane Sonko. waaw loolu lu mën a am la lu mën a am la wante nag mën na participer. bon wax la daal conseil constitutionnel tey jii moom mu am responsabilité ñëpp ci moom la ñu euh, xaar lan euh, la nar a def pour man euh, bu ñu toppoon rek justice comme am na de décision de justice bu Ziguinchor ak bu bu tribunal hors classe na ci sukkandiku pour am na ko aussi des constats d'huissier na ci sukkandiku pour ñu wax le droit suñu waxee droit ñu wax justice Ousmane Sonko mën a participer te loolu dina renforcer démocratie dina nit ñi dinañu gën a dal yaakaar naa conseil ay sage lañu am nañu expérience muy euh, expérience ci yoon expérience politique yaakaar naa bu ñu toppee daal euh, gis-gis boobu Ousmane ko mën na participer mais Ousmane Sonko mën na aussi bañ a participer su dee ñoom gisawuñ ko noonu ñaar yëpp daal euh, defe naa mu ngi euh, dépendre conseil constitutionnel ban ban décision bu nar a euh, la nar a jël. Mamadou Albert ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi lay fay di fàttali ni yow journaliste nga itam da ngay xeltu ci wàllum politique.